de 100 pour cent Découverte TV ñu ngi am mbégte kontaan bu baax a baax dellu soit a yéen ci waxtaan nee naa leen ba de 100 pour cent Découverte la chaque jour on va essayer de vous faire découvrir ay bagages yu bare bare yoo xam ne ni mi ngi noonu tey nag dañuy waxtaan ci sport te sport génnul football sport génnul làmm sport génnul basket et cetera et cetera tey nag ñu dalal Modou mbay kër gi këram la moom moo ko moom. moom mooy xool nu mu ko neexee ñu defee moo ñu ngi lay siyaare internet Badou 100 maa leen di bëggee internet yu Badou 100 pour yëpp maa leen di siyaare di leen kontaane di am mbégte di ci jàkkaarloo ak ñoom di leen bëggee bu baax a baax di la bëggee di la siyaare yow tamit. macha allah waaw tey ku gis couleur yu ñu def ñu xam ni fu mu toll nii réew mi moo soxla réew mi moo nekk ci xare moo waral tey ñuy def couleur yi di leen dooleel di leen pousser vers la victoire mm. lamb ji xaw a pause tuuti wala di di dox ba tey en même temps kan bi. di dox loolu noo ko gisee ci ñaari sport yi nga xam ne ni tey ñu bii suñu sport la ñoo ko moom suñu bopp bii tey dañ ko jéggaane ji mais tey di dem di ko xare ji ba am ci ay ndombal tànk waaw sport moom sport la rek te yaakaar naa ne sportif moom day bëgg sport ak bu mu mën doon xëy na nag di nga ci am préférence mhm. nit dina ci am mais man man su ma doon su ma doon def métier sport man football laay def mhm. làmb yàlla moo dogal mu nekk suñu métier ñu doon ci ay reporter mhm. mais football moo ñu gënal tey bu ñu tegoon télé bu ñu jàppoon télé ni ñu teg football teg làmb football la ñuy seetaan hmm. ndax ñun ku ñu xam xam ñu ci football hmm. fii ci quartier bi ñu dëkk yow mi may waxal xam nga loolu ak ci yeneen zone yi nga xamante ne yàlla dogal nañu am chance u dem fa hmm. waaw ñun daal wax dëgg yàlla sport daal mbir la boo xam dafa bokk ak ñun puisque ñun ñun grande cas dañu am Demba Diop moo tax ñun sport dafa bokk ci sunu yaram quoi parce que ñun ñëpp fii ku fi xale boo màggee Demba Diop rek da ngay seetaani match da ngay burle ji da nga dem kër gardien football yi yooyu yëpp xale yi def nañ ko mhm. moo tax daal wax dëgg yàlla sport moom à chaque fois bu ñu koy bu ñu ci bu mu ci mën a doon mhm. dañ ciy yëg suñu bopp dañ ciy yëg suñu bopp ah. fu ñu nekk ci ah, lamb ji dañuy pose tuuti xam naa ne gars ñu ngi xaar question lamb soogee ñëw ci football ci football xam Modou Mbaye xam ko ci ci football <laughs> ah nekk militaire boo xam ne nii ñàpp lay def <laughs> ah mi ngi noonu mais dañuy ñëw tuuti rek ci ci ci sélection bi joueurs yi équipe nationale ñoo gisee sélection sélection ba bu baax la macha allah sant nañ yàlla bu baax a baax bu ñu yàlla defalee ñu am ay joueurs yoo xamante ne nii wax dëgg yàlla ñu ngi au niveau keroog suñu premier match contre Gambie dama xool dañoo teg classement bi ma xool y avait six biir nationaux yu départ mhm. y avait Edouard Mendy la défense ak ak camp yi mhm. ay tout ay biir nationaux lañ Edouard Mendy Abdou Diallo Kalidou Koulibaly ak euh, comment dirais Jacob Ismaël Jacob nga ñëw ci milieu terrain bi am fa Pape Gueye mhm. le gardien comme cinq ak ak moom waa ji muy six comprendre nga mhm. après yeneen biir nationaux dugg mhm. loolu di wane ni footballu Sénégal mi ngi évoluer footballu Sénégal mi ngi dem ci niveau boo xamante ne nii macha allah diggante kaan bi ñu jóge ak léegi nii macha allah sant nañu bu baax football bi li nag fruit liggéey bu yàgg la parce que boo seetloo depuis gars yi ñi ngi nekkoon ci liggéey mhm. depuis deux mille deux Chiar grande maîtresse mhm. depuis deux mille deux gars yi ñi ngi doon liggéey doon waajal doon préparé ndax deux mille deux dañu amoon résultat boo xamante ne daf ñu wanoon ni ñun mën nañ bokk mhm. ndax jom moo tax ñuy sport jom dafa bokk ci sport jom te dafa am Sénégal macha allah sant nañu sélection bi daal wax dëgg yàlla mu mel ne fédération bi liggéey na ci joueurs yi waaw maître tey jii nii à l'aise coach bi mu dem di di ci di xooli joueurs yi nga xam ne tey war nañ mën a apporter pierre à l'édifice parce que dañu am longévité ci fédération bi waa fédération bi dañ fi yàgg mhm. loolu moo tax ñu mën a comprendre yenn yi mhm. euh, coach bi daf fi yàgg moo tax mu mën a am benn liggéey am benn constance parce que boo seetloo depuis des années bu ñu jëlul numéro un Afrique ñu ngi jël numéro deux Afrique mhm. comprendre nga ci classement mondial bi xëy na yeggaguñu ci classement yu jege jege jege ci cinq mhm. wala trois premiers yi mais normalement fii ak quelques années war nañoo mën a am loolu dañ ciy yegg jàk waaw normalement dinañ ci yegg fii ak quelques années parce que am nañu potentiel bi mhm. am nañu ay joueurs li gën a neex ci football am nañ ko mooy ay jeunes yuy football xale yuy football te am nañ am ay xale fa la ñuy duggee nag waxtaan ci mbir mi comme gars yi nee nañ lépp xale. Hmm. sport xale football xale. Hmm. ba tax na keroog soo gisee contre Gambie loo xam ne ni sénégalais dañ si doon tiit mooy ñu classé équipe sa bans du am dara hmm. ku ñu génne dañ naan ki ki ki kii dugg tanewul ki nga xam ne moom lañ génnee mais ñu gis ni que tey jii nii banc wu Sénégal tey. beneen beneen affaire la si match bi nga xam ne ni joué nañ ko keroog nan nga gisee loolu li nga xam ne ni daawul am mu am. waaw loolu mooy équipe. boo fàttalikoo équipe yi nga xam ne boo boo seetloo équipe yi di jël Ligue des champions yi équipe yi di jël trophée yi dañoo am banc bu baax. dañoo am banc bu dëggër euh, euh, euh, le coach sunu coach Pep Guardiola moom la amoon ak Barcelone. moom la am ak Manchester City. parce que dans une équipe où tout le monde se vale day doon équipe boo xamante ne nii ku ci nekk dangay ngay def jom. def fulla ba doo bëgg a wàcc kaar bi. tey jii bu la leer tey leer na keroog xoolal li ñu te sabaleñ ci banc bi xoolal li ñu classé te gànn ci banc bi xoolal li ñu yeneen ak yeneen joueurs ñu ngi ci banc bi toog. kon loolu dalay wan am nga banc boo xamante ni suñu coach wax dëgg yàlla bu ci mi ngi liggéey te mi ngi ànd ak staff bu baax boo xamante ni ñi ngi ciy liggéey ñu leen di ñaanal suñu borom bàyyi leen ak seen xel ba lépp loo xamante ne nii bëgg nañ ko wala lépp loo xamante ne bëgg nañ koo defar ci équipe bi ñu ñu réussir ko parce que dëgg yàlla ay jàmbaar lañ équipe bi équipe bi banc bi banc bi mu am rek mën na gañe ku ne mhm. waxuma la ak onze yi titulaire mhm. waaw tey ji boo boo boo boo tey ji supposons nga démarré loo nga démarré loo ci terrain bi Lamine Camara Pape Matar Sarr Pape léegi kan ngay teg ban Nampalys di sa Gana Gueye ah ak keroog ak Pathé Ciss léegi xoolal loolu comme à Cheikhou Kouyaté mhm. comprendre nga ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ni am nañ leen ñuy ay potentiel mhm. tey bu ñu gënee liggéeyee rek mhm. gën a góorgóorlu gën a jàppante ba pare équipe bi ñu seetlu fa lu baax mu ñoom dañu bëggante c'est ça le sport ay partenaire bu ñuy ànd dañuy bëggante te ñoom gis nañ ko ci ñoom vraiment ñu leen félicité di leen ñaanal suñu borom leen te defal leen jàmm le rôle de de Lat Diouf dans le staff. waaw gisee nu muy communiquer ak booy yi. waaw di leen wan seen grand la en temps de fédéral noo gisee. parce que moom moo njëkk moom moo ñu tijji. Mhm. alaaji moo ñu tijji alaaji fu ñuy dem alaaji ba ba muy bàyyi ba ba muy mënaan mënatul équipe bu ñëw dafa war ànd ak moom parce que ñun moom moom il mhm. tey ñun lii ñu am ci booy yi alaaji moo ñu ko njëkk a fóonloo. Mhm. nañu ba ñu dem ba final. comprendre nga. tey ji bëggee ba pare mu doon moom waaleykum salaam mu doon référence ci xale yi mhm. parce que xale yi toog nañu seetaan El Hadj Diouf en 2002 mhm. toog nañu seetaan El Hadj Diouf Liverpool seetaan nañ ko Bolton seetaan nañ ko feneen ak feneen mhm. comprendre nga Lens mu doon joueur boo xamante ne ni ñun ñu koy gis ci suñu staff wax dëgg yàlla lu ñuy yokk doole la man de may gis El Hadj Diouf ci staff bi yaakaar naa ni lu baax la mm-hmm. may gis Pape Thiaw ci équipe bi yaakaar naa mm-hmm. lu baax la may gis keneen ak keneen la génération de 2002 ci équipe bi ñoom ñëpp waaleykum salaam Tony Silva Lamine Diatta Khalilou Fadiga mm-hmm. Habib Beye léeg mu nekk ca tubaab ya may xel mi du nekk fadul ci équipe bi xam nga loolu yëpp loolu lu baax la luy may xale yi wala luy tax xale yi gën a gëm ni seeni mag ñi ngi seen ginnaaw seeni mag ñi ngi seen ginnaaw waaye tey bala ñoo dugg nag ci biir football bi dafa am tey suñu joueur boo xam ne ni tiis daf kaa dal muy Cheikhou Kouyaté te soo amoon kaddu boo koy sànni ngir moraal bi ngir mantaal bi gën a baax lan lay doon te gis nañ ni keroog équipe bi nga xam ne nii fa la nekk gars yi dugal ah, wan ne ko tey on de tout cœur ah, avec moom waaw loolu mooy loolu mooy yoon xam nga set c'est un sportif mhm. xam nga Cheikhou c'est une légende fii dans ce pays mhm. Cheikhou li defal nañu loo xamante ne nii moom ci lu mu nekk ñun dañ ko fa war a fekk mhm. ñu ngi bokk ak moom tiis bi te di ñaanal yàlla sunu borom way juróom boobu yàlla xare ko aljana mm. ci barke yonent bi parce que gisoon nañ ci seen diggante complicité bu mm. neex boo xamante ne ñoom ñaar ay moroom lañu bu ñu leen mm. daan xool dañ daan gis suñu bopp comme ñun suñu bopp mm-hmm. suñu way mm-hmm. wax dëgg yàlla ñu ngi bokk ak moom tiis bi te di ko ñaanal yàlla sunu borom may ko xolu muñ mm-hmm. te Sénégal ñu football pour papa yi Cheikhou parce que paa bi c'était il était un sportif moom ci boppam mais xam nga boo dañ ko daan gis sax mu naan si xamul dara Mhm. boo waxee mu ne waaye kii daa xam dara kii mhm. maa ko dàqoon kii nangam nangam loolu day wane ni moom c'est un sportif complicité bi ñu amoon kon mhm. ñi ngi masawu Cheikhou di masawu toute l'équipe parce que aussi ñoom ñoom ak Cheikhou benn lañu ñu koy ñaanal suñu borom xare ko aljana yàlla woyofal suuf ci kawam te lépp loo xamante ne nii rek def na ko ci ah yàlla na àjjana di noflaayam ci bàyyi si waxtaan bi mooy lan Sénégal gars yi ne mu toll nii coow li du lenn lu dul milieu de terrain bi ah. Modou Mbaye en tant que milieu de terrain ngi jékki-jékki gis un Pathé bu ñëw bok commencé di teg bal bi di football Nampalys bu ñëw Gana Gueye moo nekkoon moo nekk patron bi ñëpp xam nañ ko xam nga mais ñu ne am na blessure ñu jóge ci loolu Pape Gueye Lamine Camara ñëw wane boppam coach bi est-ce que du am choix ci ay combinaison ci ci du am problème de choix ci ci problème choix kay bien sûr mais ça dépend aussi ci match yi nii football. Mm-hmm. parce que da ciy am match yoo xamante ne on a juste besoin d'une personne expérimentée mhm. que jeunesse loo gis ci football moo ko mhm. dafa baax ci football. Mhm. mais on a besoin aussi de personnes expérimentées c'est-à-dire bu fekkente ne sa colonne vertébrale dafay doon ñu personnes yu expérimentées. du libéro le numéro six l'attaquant loolu bu fekkee ne am nga ko mu doon ay personnes yu expérimentées parce que ñun am na loolu. Sadio il est expérimenté ci milieu bi gànn boo ko fa tegee il est expérimenté Khalilou Kalilou Koulibaly, il est, il e il est expérimenté. Même le gardien Edouard Mendy, il est très expérimenté. Comprends nga kon ñun yaakaar naa ne colonne boobu baax na li ci des mooy football nekkatul dëgg la ci ci dañuy football ci digg bi mais aussi football nekkatul ci digg bi kese aile yi day football. boo seetloo léegi football bi bi bi mën ci àdduna mooy football yi nga xamante ne nii piston yi ñooy génn ñooy football. te keroog boo gisee li suñu njaago bi def Crépin. nga gis kat ci beneen aile bi. Ismaël Jacob bi mu dugg bi mu ñëwee gis nga mu doon mm. loo xamante ni ça prouve ça prouve que ñooñu seen aile yooyu am na solo mm. on l'avait fait l'année dernière avec Saliou Ciss et Sadio Mané mm-hmm. waaw di wax ni ki bokk ak euh, Sadio poste bi mm. na gën a gën a na mel ni Saliou Ciss daaw communication ak Sadio beneen affaire la xëy na nag expérience ba la woon ak yàgg footballandoo bi comprendre nga mais daal lu si mën am rek ñun am nañ équipe boo xamante ne nii bu staff technique bi déggoowee toog waxtaan ci seen biir di teg les hommes qu'il faut à la place qu'il faut non amul ku ñu moon ci Afrique mais mu mel ni kon match bu nekk tey senegal su ko neexee def classement bu bees waaw ak ñi ko war a jouer ak ak ak ak match bi parce que match bu nekk dafa am contexte mhm. match bu nekk dafa am nuñ ko war a jouer dafa am match bu nekk nuñ ko war a entamer tey jii booy joué ak Cameroun bokkul ak ni nga joué Gambie parce que Gambie bi nga fubalee da nga ko teel a dugal mhm. bi nga ko teel dugal xam nga ni yaa bi comprendre nga donte amaat na si ay but mhm. mais tey ji Cameroun booy football ak moom dëgg la pays benn noir la boo xamante ñu ak moom xaw na doy waar jamono mhm. yi mais tey lañ ko war a wan ni non bête noire bi jeex na. waaw. ñaar ñaari gayndee tase. te bii te bii te bii teranga la. te déggul jat ñun dañ koy naxtaan comme que déggul jat gaynde bu déggul jat nag dañ koy naxtaan. faaw nga defal ko teranga mu wàcc xam nga jox ko ay ay ay yu ndaw. Uh-huh. ay tef mu laal ci. mu su ko defee xam nga. ñu xool buntu kër gi rek jaar fa waaw te gëm naa ni dañ koy def ndax ñoom am nañu luñ ñu bàyyee xel daaw dañoo jëlee coupe bi seen dëkk mm-hmm. te ñoom laa bëggoon sax final dóor fayu ma leen amoon nga xam fi mu ñoom laa comme que amaat naa leen nii mm-hmm. nañ ñëw ñu dajee mu mel ni tey képp koo xam ne ni pays d'Afrique nga yàgg si ginnaaw Sénégal tey waaw comme ni Cameroun nekkee woon suñu ginnaaw bi ni football bi Égypte Côte d'Ivoire tey noonu la nekkee suñu ginnaaw Côte d'Ivoire tey jii kon xam nga ne match boobu waaleykum salaam kon tey dinañ am beneen douzième gaynde ci kaw ci ci ci kaw. waaw uh-huh. dinañ am douzième gaynde. Uh-huh. am nañ beneen douzième gaynde bu bëri ba uh-huh. pare. foofu. tamit bari na fa ay sénégalais yoo xamante ne ñu ngi foofu. foofu lañ basé. comprendre nga mu nekk loo xamante ne ni wax dëgg yàlla yaakaar naa ne daal tey moom Cameroun dina gis buy. Modou pour ñu tàggatoo la personne de Lamine Camara loo ma ci wax performance yi nga xam ne ni tey def na ko si match bi weesu. Sénégal gépp nangul xale bi te tey soo xoolee daaw rek mi ngi woon fii ci football Sénégal di di di góorgóorlu ñu may ko chance am mu exploité. waaw talent la ak don mm. yàllaa ko may. Mm. mu doon xale ba pare xale yi fubal. Mm. xale mooy fubal. ñoom Cristiano Ronaldo biñ koy gën a toj. ay xale lañu woon. ñu mémé Chris bi muy am vingt deux ans kenn da ko antan mi am dix Mbappé bi muy am dix neuf ans kenn da ko antan moom na ñoom ñooñu nag seen dëkk yi dañ leen mayoon chance su football loo leen mm-hmm. wane leen nit ñi gis leen ñun nag am nañu chance tey ñu am Lamine Camara am nañu chance am Elimane Ndiaye am nañu chance am yeneen yeneen xam nga cinq jeunes yi nga xam ne ñi gën a doon seen jeune ci CAN bi mm-hmm. Lamine Camara ci la bokk waaw te te te te d'après ñoom cinq ñoom ñoom cinq ñëpp moom moo ci gën a def performance ci premier match am daf na li Mbappé defoon ci premier match mu doublé mm. te Mbappé keroog bi mu ko defee ke coupe CAN la ko def CAF euh, euro la ko def xaw ma coupe du monde mm. français yi dañ cee wax lu ne mm. mais ñun suñu journaliste yi dañ ci liggéeyal suñu joueur bi def ci propagande Lamine Camara il fait partie des meilleurs jeunes de l'Afrique xam nga ñu koy ñaanal suñu borom defal ñun ñu ngi ci ginnaaw équipe Sénégal yëpp ngi ci ginnaawam ñu ko yokk doole ñu ngi ànd ak moom di bokk ak moom lii mhm. ko wax ne kaan bi kaanam la na wane boppam ndax bu jógee fii club yu mag yi jël ko on a envie de voir un Sénégalais jouer Real de Madrid mhm. on a envie de voir un Sénégalais jouer Barcelone jouer Man U mhm. jouer ci équipe yu mag yi certes am nañ ko Sadio def na Liverpool. Mhm. Kalilou def na Napoli gars yi def nañ ci club yu mag yi mais on a envie de jouer de de voir un Sénégalais mhm. sol maillot bu weex bi muy maillot merengue bi mhm. wala muy maillot blaugrana bi. comprendre nga soxla nañ ci lool loolu te yàlla nañ ko ko yalla defal. bu fa jugee mu am club bu mag wala Manchester City jënd Lamine Camara. gars yi daal nee nañ su paree kan bu mu ñibbi Metz quoi na dem fële. <laughs> non non faaw mu ñibbi Metz ndax daa yor këyitu Metz daa yor ko mu ñibbi fa. mais balaa moo dem. balaa kaan bi di jeex yàlla na am équipe bu contacté Metz. Mhm. Metz ne ko bàyyi ñun bëgg nañ xale bi. Mhm. àll jox leen ñu ko ñu ñu ñu defar ko. Mhm. te Lamine Camara rek mu nekk avec un très grand coach dama ko doon mu dajeeg Zidane. waaw bu daje woon ak ñu am Bellingham moo waaw daf ko daax fubal nit la muy nit rek. man man man man man favoriser wu ma ben tubaab suñu kaw zoor yi. certes nag ñoom ñoom moom fubal bi mais talent dafa am. am na africain yu dàq fubal tubaab bi fuuf. Sadio Mané bi muy nekk ci au top postom benn kan moo ko dàq. te y tous les grands joueurs du monde. te ba tey ngi corote te ba tey mi ngi corote xoolal keroog rek match nga jooy. ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi ñaanal toute la jeunesse du de l' équipe mais aussi ñu ngi ñaanal Lamine Camara surtout. yàlla sàmm ko yàlla bu mu am blessure. Moussa Niakhate ñu koy wax na moytu. na moytu na moytu Moussa nañu moytu blessure yi baaxul. Pamatar Pamatar Sarr nag <laughs> Pamatar rek Pamatar bu amee. c'est que nag équipe bi problème yaa a def. Pamatar Sarr bu amee Pamatar Sarr mu am volume de jeu rek jour antanu ko. billahi wax benn affaire kan waxuma kan ba nga ay xale kay dem. boobu moom coach buy classé mooy am problème. non mais ba kan boobu kan boobu kan boobu. kan boobu kan boobu kan boobu moom xanaa ñun bu ñu demee équipe bu ñuy footballal normalement moom ay quatre bal la war a laal ñun ñoo a laal bal yëpp. vraiment ñu ñu ñaanal leen defal leen jàmm yàlla def jàmm ci réew mi. ñu gën a booloo dañoo booloo woon ñun ñëpp àndandoo dem uti ndam ñu amoon ko ñu mànkoo woon uti ndam li mhm. Sénégal koo gis muy kott moom ñu ñëpp ñu bennoo nekk benn bokk nday bokk baay mhm. na leen àndaat ci loolu nañ leen bokk ndey bokk baay te xam ne bu ñu booloowee ñun mën nañ am lu ne waaw réewum jàmm la réewum teraanga la kon nañu booloo ñu bokk nday bokk baay su ko defee lépp luy ndam rek du jomb dugg ci suñu biir dëkk bi du jomb dugg suñu biir dëkk bi Modou Mbaye tàggatool nga classal ma onze Sénégal Cameroun sa onze le onze de Modou Mbaye Sabali dafa wér. Sabali Sabali wér na non Sabali reprendre na course. reprendre na course reprendre na reprendre na course man défense bi ñu mujjee football bëgg naa. Mhm. amul problème Moussa Niakhaté ak euh, Kalilou Koulibaly nga def Abdou Diallo bu dee Sabali dafa wér nga bàyyi Abdou Diallo ci banc bi indi Sabali. Mhm. ah dem ak Ismaël Jacob. mu dem à gauche. Mm-hmm. terrain bi bu la neexee. Mm-hmm. bu bu bu ma doon bu doon bu doon sa Aliou Cissé benn mag laa fay football muy Gana bu dee dina football bu footballee ma boole ko ak Pape Gueye ak euh, Pape Matar Sarr bu fekkente ne deful loolu mu def Pape Matar Sarr Lamine Camara Pape Gueye yaa ngi dégg. ci kaw ñetti xale ñetti xale ñu dawloo Cameroun yi boo footballee ba mu ne Cameroun 2-0 Gana dugg géré Cheikh Kouyaté ñu ñu defal ko standing ovation ñu defal ko standing ovation jaale waale ko. Uh-huh. léegi ci kaw ci kaw ci kaw xam nga xam nga man Sadio Mané. Uh-huh. da doon fubal neuf Liverpool ay jamono doon na fubal neuf Liverpool. waaw mais Cameroun tey ñoo war leen a dawloo nga war a def Iliman Ndiaye def Ismaïla Sarr Sadio Mané pointé. dama ko war a dóor ba mu daw. wax nga dëgg de. def Iliman Ndiaye def Ismaïla Sarr Sadio Mané pointé. indi ñetti xale Pape Gueye Pape Matar Sarr Lamine Camara Lamine Camara. teg Ilimane Ndiaye teg Pape Matar Sarr teg Sadio Mané. waaw rek da ku ne lay paas. <laughs> ah Lamine loolu lu nga ko ci ginnaaw Pape Matar Sarr moo koy dóor nga fubal loolu Lamine Lamine Camara relayeur numéro 8 Pape Gueye def 6. Pape Matar Sarr dem fubali. deuxième mi Nampa ñëw. non deuxième mi nga def Nampa. su neexee Pathé Ciss ñëw. su ko neexee Pathé Ciss ñëw. su la neexee Gana ñëw. bu la neexee sax bu ñu mi wee nga génne benn attaquant dugal Ablaye Seck mu dem taxaw ci buntu défense bi nga libéré tuuti Pape Gueye mu ñëw fubal si wala nga génne keneen sa ça va on peut jouer. Jackson ah, Nicolas. day naan el bi Ismaïla may ko ah, am ko génn Sadio Mané dellu. dellu dellu ci lii Jackson dem pointé. te ñoom su boobaa dañ leen dañ leen di gën a xoj. leen di xoj noonu kanam tey dañ ko war a dóor ba buñ tirage tey mu bokk ñun pour mu delloo ku tirage bi ne zéewuñu ak Sénégal dañ leen war a woon suñu bopp. en 2002 Rigo ñoom Rigo Bersong ñoom Patrice Mboma. Mm. li ñu duñ ko fàtte man du ma fàtte defet boobu. du ma ko fàtte saa yi ma ko xalaatee jooy. kon nañu yàlla nañu yàlla defal jàmm. ñu dóor leen ci jàmm. te aussi yàlla may ñu ñu dem final. Mm-hmm. yàlla nañ demaat final pour défendre suñu titre. Mm-hmm. parce que xam naa ne bu ñu góorgóorloo ba dem final. non coupe bi moom day ñëwaat neexee yàlla. bu ñu góorgóorloo ba dem final coupe bi day ñëwaat ceci est le début ah dinañ ñëw incha allah defal leen teaser bu doyo doy waar ngeen xaar ko ak Modou Mbaye partenaires yi waaj leen yéen ñi nga xam ne ni yéenay solal Modou Mbaye mm-hmm. yéen ñi nga xam ne ni yéen a koy dooleel waaj leen am na affaire bu doyo doy waar boo xam ne ni tey on va vous le ak Badou 100 pour cent jërë ngeen jëf mbokk yi